mbokk yi asalaamaaleykum euh, maa ngi leen di nuyu leen di sant itam euh, bëggoon dellu si rek ci accident ba xewoon euh, fa nga xamante ne moom mooy Badiouréh wax la ca xew gannaaw ba ay ba amee may fàttali nag yàgg naa di ci wax waaye ba tey fokk rek ñu dellu si waat ci ndax loolee ñu war ba accident bi amee am na ñoo nga xamante ne dañoo toog 24 heures ñen ñi tok luy tollu presque ci ñaari fan yo nga xamantene ne faj ba ca war amu ca amna ño nga xamantene sax gannaaw accident bi 24 heures kenn laalu len té nak damay fàttali rek ni bus bi ba muy accidenté blessé yi ñu ngi toll won ci 65 blessé 65 blessé yo nga xamantene hôpitaux yi nekk ci région de Ziguinchor ñu len jël en charge nga jël biñona nga jël Ziguinchor bolé ca Oussouye manam hôpitaux ak structures sanitaires de la région bi en charge 65 blessés 65 blessés suñu hôpitaux de la région de Ziguinchor nous en charge Si nous avons urgence lañ leen nga nekk 24 heures nga médecin pour xamal ni ñun ñi saa yu ñu waxee ci wàllu santé luñ ca wax rek am lu ñu desal waaye nag mënuñu ko teg ci ginnaaw médecin yi wala leneen ak i leneen ak i leneen mënuñu ko parce que xam nga lu tax ñoom ci seen wàllu bopp bu ñu bëggee te mënuñu ñàkk mën bi nag mooy jumtuwaay yi da leen a manqué ba ca topp mooy personnel bi ca wàllu woowu dafa manqué en qualité nag lay wax parce que euh, structure sanitaire boo dem fekk fa ay blouse ya dul jeex am na ñoo nga xamante ne ñu ngi génn euh, université nekk ay docteur juróomi at ci tey wala juróom benn wala lu ko teg ils sont des contractuels jëlaguñu leen ci nguur ils travaillent pas dans la fonction publique te boobule waxtu suñu nguur gii mu ngi fay ñoo nga xamante ne ay jabaru ambassadeur la di leen di fay ay 500000 ay honoraires par mois wala di jël lu toll ci koppar ci 500000 di ko dugal ci téléphone ministre nañuy waxante dëgg nañuy waxante dëgg li ñuy wokk di ñu xuli di ñu noot mu ngi sa suñu njiit ya buñ leen ko waxee muy dëggit buñ leen ko waxul itam ñu ngemboo leneen la dul dëgg léegi nag da ngay gis ci ci askan wi ñoo nga xamante ne ci ñàkk jumtuwaay ci ñàkki moyen ci suñu euh, euh, euh, système santé ni muy demee ñoom dañoo fekkee seeni mbokk fa ñuy loru dund ko nga set sa wajur bu góor wala sa wajur wu jigen sa rak sa mag sa soxna di loru ci ap structure sanitaire ndax way ya fa ñak ñu xey ministre wala député wala lenen ak leneen ci nguur gi mu xey faju Europe bu ñu xëyee nit ñi nañ ñu compassion compassion wu lan ba askan wi di loru di notu ci ñoom seeni i erreur ak seen doxalin ñoom ñu xëy biir buy métti wala bopp buy métti mu xëy dem Europe di fa faju nit ñi naan ñu compassion xam ngeen lu muy nuru mooy nga nekk njiit kër kilifa ci kër sa njaboot di añee sombi réeree sombi nga yor sa cinq mille wala sa 10 000 francs nga xaar ba guddi nga dem dugg ca dibiteri ba nga lekk ba regg dellusiwaat siwaat kookooy njiit ju gore koy borom keur bu motadi suñu njit ni nak lolé lañu ngemboo dañoo motadi dañoo goredi ba paré am liñuy duppé malhonnêteté morale mënoo jité askan ngay seppi sa bop di dem di jox sa bop wala sax di tip ci nguur gi moyen yo nga xamantene mo lay permettre yo nga nek en très bonne santé gis nga droit à la survie ñun ñepp la war nak bo nekké njit goré da la war moy bo jité askan ñuy nekk ci tolof tolof war leen ni la ngeen di dundu mom lay dundu way mënu leen ñi jitu sa yu mekké ca yeen rek ngeen seppi seen bop dem faji seen sa ci Europe lolu ci être malhonnête lolu du kilif du du jëfu kilifa bu ngeen ko moté deugantane di ngeen di dundu ak ñun lu ñuy dundu way nak way nak la wolof njaay di wax rek buki bu waxam bané wala xép ko ba kay bëgg songu ca doxalin wala suñu njiti bu lee buñu démé ba am fit di doxalé doxalin gu nyirek, rek ñun askan wi ñun la neex ñun ñoo leen ko may ñun ñoo leen ko may bës buñu sobé ñu jom ju mot seuk dootul demee nii système de santé bi nag bii mooy sama xaw ma ñaata vidéo ma cay wax waaye du ma ci tàyyi du ma ci tàyyi parce que dama jàpp ni injustice la dama jàpp ni itam indice de pauvreté ak de sous-développement mënta wees li xew ci suñu hôpitaux yi mënta wees lu xew ci suñu hôpitaux yi rek ci accident bi gis nañ ñoo xam ne dañoo buddi seen bëñ sans anesthésie boobu toj lañ 24 heures ñu ngi ci métit ab ñoo xam ne balaa ñoo jot paj ci boppam il a fallu qu'il joue avec les relations ndax loolu dafa war ci situation bu urgente yow pour ñu faj la nga nekk situation ci urgence euh, d'urgence foog nga woo autorité ak yooyu noonu dugalante génn ba ñu seppi la ci ay malade ñu dem faj la loolu neexul ci xol ba fii may wax ak yéen am na ñoo nga xamante ne ñu ngi leen di jëlee fii te Ziguinchor di leen di yóbbu ca Dakar ndax loolu war ndax loolu war ndax loolu dëgg ba pare nit ñi bëgg bu bu bu autorité demee euh, faju ci Europe ñu noppi wala ñu koy nës na xel loolooy di koy seytaan yi loolooy hypocrisie pire. gannaaw loolu nag may masaw ñi nga xamante ne dañoo loru ci accident boobu waaye nag daanaka may masaw képp ko nga xamante ne itam euh, euh, jot nga loru ci accident bu pare am métit wàcca tegu moo di ñàkk am prise charge bu bu jaar yoon donc euh, di di yeesal sama njaal itam ci famille yi euh, di masaw bu baax a baax ñi gaañu euh, di leen di ñaanal yàlla daal na ci def la gën ba ñu delluwaat ci seen i njaboot ca jàmm lii laa bëggoon bokk ak yéen ci waxtaan jaagante def